باسم الإلهي bismillah mbok yi ma ngi nuyu ñëpp ah, di len ziar baax di len balu ak ah, tay nak ci li ma ñewon manam tay ji di len présenter yi nga xamantene ni nit ko soxla di wor fune mu ne ñu ko gis fi may njëkke moy lan ci garab bi fi la njëkke garab bi nga xamantene ni mu nit ñi dañ koy soxla mo xam goor go xamantene day gaaw jot ko bu de sey moy wala awram dem na maanaam ba màndiyu bi oyof ñooy koy wat garab baa ni eh, nako ñepp xam garab sëñ xaadim wa ah, nataal bi moo ko nii garab walu góor ci lay dox góor go xam néew nga katam ci kàttan ci borom kep ku dee jëfandikoo rek insha allah rabbi ci borom na la defal ndam des na ba tey yemul foofu dong amna na tamit pomade bo xamanteni ni bu dee naan garab bi pomade bi dang koy jël eh, diko diw sa bop sakara ngeen baal ma si kàddu gi damay leral boo ko dee diw ni si bi ci carton suñu borom moom incha allahu soxna ci nekkal mom day dimbali góor gor go xamantene ne awraam day noy wala muy gawa daanu ci kaddu ngeen jéggal ma ci kaddu bi yoy yëpp ci ci sa day day dëgëral awra bi mo ñu ko ci frota rek ci awra bi ci bopp bi mo nga nii pomade bi moom benn ne ko ndax pomade bi bu len xeeb nak ndawayam bi ndax ay njariñu kase la bu kenn gis li xeeb ko njariñam bi njariñ kese la wa moy format bi ci bopp bi rek nga koy djog ci carte kàttanu ci borom képp ko jëfandikoo inshallah rabbi ci am daal bi batay ah dama len di del di leen wanaat bi ah, bi ngeen xamanteni mom moy dox ci ndoxum city batay gep ko xamanteni amé nga ndoxum city mu sonal la di def di tek der sayram di def xassam comme ni ñu ngi ko woné ni ci notable bi moo xam mu def lay picc lépp lu mun la mënti def ci kàttanu si borom bu ma la joxee garab bii incha allahu rabbi nga koy jël ci wàllu ndoxum siti di nga ci gis sa bopp bu baax garab la boo xamante ni garab bu bëri njariñ la garab boo xam da nga koy jël gis sa bopp bu baax a baax laa yor garabu ndoxum siti fépp foo mënti nekk moo xam da ngaa nekk Sénégal moo xam da ngaa nekk bitim réew nga soxla ko boo ma contacter si numéro bi 77 490 54 05 dañ la ko livré ba nga jot ci garabu ndox mu cité yi moom sëñ Xaadim mooy loolu. benn numéro nag moo am na suñu taal bi drapeau Sénégal bi moo ci ne muy garabu sëñ Xaadim ndoxum cité rek day dox képp koo xamante ni am nga ndoxum cité ci kàttanu si borom boo ko jëlee incha allahu rabbi diñ ci gis sa bu baax a baax waaw. moo nekk noonu ba tey dañ leen di woon deuxième phase bi di nga xamante ni parce que mooy wane njariñ moom bii mooy ñi nga xamante ni am na ñoom xam ñu bëri ñoo xam xam nañ ko ndax garab gi moom du bees bii nii bii ci hémorroïde lay dox ki nga xamante ni dafa am hémorroïde mu koy sonal di def picc di nàcc muy def picc mënul toog mënul def dara bii lay consommer bii lay jël di ko jël di ko diw ci yi nga xamante ne fa la picc bi nekk

bu kenn demati fenn ngir lan ngir ah, naani dom pour lan yok forme wala yok ans wala yok dara mo nga ni garab la bo xamanteni ni koy jël ah, diko diw bo de da nga bëgg wen nga ko ci diw mo xam da nga bëgg ay ans nga ko ci diw mo nga koy def ci carton si sa guddi bu guddi nga koy def bo de bay teud si koy jël frotté ko ci carton si borom bu de jigen la bëgg forme bu baax ci carton borom ci gis sa bop bu baax baax garab la bo xamanteni ni àdduna xam nañ ko seigne khadim garab la moo xam garab bu bëri njariñ la maa ko liggéey sama bopp wutiwuma ko fenn képp koo xamante ni rek yitteel na la na nga woote si numéro boobu si écran bi incha allahu rabi foo mujj nekk mën nañ la ko livrer ba nga jot ci moo xam da nga bëgg fees wala ans lépp loo bëgg rek garab bi moom macha allah kon na ko àdduna xam garab yu bëri njariñ la sa maanaam yemuñu fii ba tey ci wàllu garab yi ndax bëgg nañ fépp koo xamante ne territoire Sénégal la incha allahu rabi garab yi ñu fexe nga jot ci képp koo xam yitteel na la ci garabu seen xaadim bi incha allahu rabbi dinañ fexe maanaam nga am ci gis ndax ay njariñ kese la ndax nit a ngi feebar bëgg a faju amul garab nit a ngi faju feeb dem ci sëriñ pour mu jox la garab boo xam mu ngi ci gis sa bopp mooy lon waaye bu la yàlla womatee sëñ xaadim ba nga ñëw si sëñ xaadim incha allahu rabbi ci kàttan si borom bu la joxee garabam boo ko jëlee ni nga ko war a jëlee dañ ci am ndam yàlla nag lañuy ñaan yàlla mooy maye mooy dooleel mooy def lépp kon maa ngi ñaan yàlla suñu borom ya képp ku ma yàlla booleel yàlla ba nga ñëw jot si garab gi maa ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla nga ci mën a gis sa ndax loolu rek mooy sabab bi mooy lépp maa ngi nuyu ñëpp tamit di ziar ñëpp di baalu àq di ñaan yàlla Sénégal bi nga xam suñu réewul senegal yàlla def fi jàmm def ko ci àdduna bi yëpp waa jërë ngeen jëf goodbye.